salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. vidéo bi dafa benn oustaz boo xamante ne mu ngi Sénégal fàtt naa turam mais dina affiché fotom ci suuf ndax mu ngi toog di tàgg Youssou Ndour di ne Youssou Ndour ku baax la di ne Youssou Ndour mu ngi jàppale ndaw yi di ne Youssou Ndour alaji Youssou Ndour boole ci ba tàgg ko ba ne alaji Youssou demagul màkk te jullit bu ne. bu gëm yàlla xam ëllëg dinga dee ñu dëkkal la ba laajte la li nga jëfoon fii ci kaw suuf koo xamante ne gëm na ne yàlla am na gëm bis penc am na gëm allaaxira am na ñaanoo yàlla am xaalis bi Youssou ndur am ñépp amul kenn koo xamante ne am na xel ñaar ke Youssou Ndour alalam bi mu am yépp ci fecc ak tëgg lako ko amee boole jigéen ak góor ñuy fecc di fanaanoo di mooy yàlla subhaanahu wa taala yàlla sumu boroom nee na ci alquran suratul zalzala baada aus billahi min ashaytaani rajim rahim ida zulzilat il ardu zilzalaha wa axrajat il ardu wa qaala al insaanu maa yowma izin tuhaddisu axbaaraha bi anna rabbaka awhaa laha bis pënc suuf bi yàlla da koy tàggat mu wax yow mi doon fecc ak ki doon woote di tëgg ñuy fecc bis boobu soo tuubul léegi léegi laata dee muy ñëw pour yóbbu sa bakkan dinga rëccu yow ustaas boobu nag ndax bu dee Youssou Ndour dalay may xaalis wala dalay invité TFM wala dalay invité ngay def ay émission ngay dem ba di ko tàgg waxoo na woy waxoo na bàyyi concert yi muy tëgg waxoo musique dafa haram wa min annaasi man yastari lahwa alxadiis li yudilla an amul benn musique bu dagan musique yépp haram waaye waxoo loolu Youssou Ndour ku baax la Youssou Ndour mu ngi jàppale ndaw yi Youssou Ndour kan la jàppale ban xale la jàppale Sadio Mané mu ngi nii tabax na hôpital tabax école di fay waa Bambilor Youssou Ndour ban hôpital la tabax Sénégal yépp wax leen ci Sénégal yëpp dakaar Médina région yi yëpp fan la Youssou Ndour tabax même bu dee dispensaire bu gëna tuuti wax leen ko nee leen ma dispensaire bii la man Médina rëbës laa juddoo fa laa màggee rëbës fa juddoo fa laa kan la joor avant ñi koy tëj kan la joor képp ku xam ñaay cokkeer war nga xam kan la joor tribunal bi fi mu ne foofu lañ doon jouer football stade Assane Diouf avant ñu koy foofu lañ doon dawal ay velo géej sumbu sumbujum iite foofu yëpp xam nañ fa wax leen ma ñaata hôpital la Youssou Ndour tabax senegaal wax leen ma ñaata jàkk la Youssou nduur tabax même bu tabaxoon junniy jàkk du ci am benn yoon tiyaaba du ko am ndax alalam bi dafa aram inna allaha taala tayibun laa yaqbalu illa tayiban yéen ustaas yi nga xamante ne nag dañ leen di invité ci rajo yi di leen invité ci télévision yi di wax lu neex seen bakkan ngir ñu jox leen koppor ragal leen seen boroom ndax yenent bi neena na li ma gën a tiit ci sama xeet mooy ñi nga xamante ne jàng nañu waaye jàng boobu ñu ngi ci réeral jaamu yàlla mooy ñu mel nii yéen ñu mel nii yéen toog ci rajo ci plateforme di tàgg koo xamante ne wooy kese mooy liggéeyam xaalisam bi yépp ci woy la ko amee te du ngeen ko wax te du ngeen ko tere te du ngeen ko laayee biir xanaa toog di ko tàgg di dem ba di ne alaji Youssou Ndour alaji Youssou Ndour Youssou Ndour fu mu demee Màkka man de gisuguma ko kon nag ustaas yi ragal leen yàlla da leen wax nit ñi dëgg toog ci émission rek ñu lay jox dix million wala cinq million ngay toog di wax nit loo xamante ne yàlla bugg ko yenent bi bugg ko yàlla nee na subhaanahu wa taala wa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid dama bëgg sénégalais yëpp partager vidéo bi ba mu yegg si si sëriñ boobu ustaaz boobu wax ma sëriñ di us ab ustaaz la dinaa def fotom ci suuf mbuur ngeen gis ko xaw ma ustaaz Moodu Sàmb xaw ma ustaaz Sàmb xaw ma ustaaz nak nak ak nak waaye li ma lay wax rek mooy ragalal sa borom xaalis bum la taral bum la jaral nga jaay sa sa ngor xaalis bum la jaral nga jaay sa diina loolu la yenent bi wax bis dina ñëw ci aaxiri zaman nit dina xëy doon jullit gont doon yéeféer ndax day njaay ngorom ngir alalu àdduna kon nag yow oustaz boobu ragalal sa borom partage leen vidéo bi dugal leen ko ci youtube bi ngeen partage ko ba mu gis vidéo bi dinaa xool léegi turam ma xool ndax dinaa gis turam defaat benn vidéo pour ngeen dégg ko